ma bëggee leen siyaar leen kontaan ci yéen bu baax a baax kenn kum ci ne fa nga man di toog maa ngi la fay fekk ni la jox ko loxo euh, nuyu la ziar la bu baax a baax màggal la ba pare wax la ni kontaan naa ci teewlu gi nga xam ne yaa ngi ma koy teewlu ak aimé bi ngay aimé sama vidéo loolee mbégte lay doon ci man mbégte lay doon ci man tamit ma daj ngir andil la information yu wér te kon defal sa abonnement yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeen la yow mi ko deful gul def ko ta nga aimé suñu vidéo xibaar yi dañ koy commencé ponk bi ci jiitu nag mu nekk Liverpool gi nga xam ni fi mu toll nii léegi nag da ko dañ ko wulli ki ko wulli Toulouse la nga xam FC Toulouse nag yéen ñu ko xamul ab équipe la boo xam ne mi ngi nekk ci championnat France di équipe boo xam ne daanaka sax nekkul ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy xaar pour ñu mën a jël euh, boobe championnat moom nag moo jàpp Liverpool gi nga xam ne Angleterre Ligue des Champions waroon a wax ak moom ginnaaw ba mu barestikoo ba wàcce boppam gën naa wàcce boppam ci kanamu équipe France bi nga xam ne euh, daanaka équipe boobee ci gàttal équipe bu euh, néew doole la war a doon loole tamit nekk ñu mën a jàngat ci Liverpool gi nga xam ne bu ñuy xool football meilleur mën nañoo génne ci ñi nga xam ni ñoo ko war a ndax Mouhamadou Salah ki gaayam au niveau lan ci wàll football waaye fi mu toll nii li ñu gis ñu koy doxalee loolee dalulum xel loole tamit daanaka ah, jàpp. bu fekkente ni bëgg naa jël dara dana sensé aw doxalin moom mii di Liverpool duñu ko mos a fàtte benn yoon ñancoo international tànkum di jorom boobee moo nu andi leen coupe d'Afrique boo xam ne ba léegi bu nu kenn yebul moom la tey jii nag ca Arabie Saoudite Dubaï def na fa li nga xam ne wala boo fële ci Arabie Saoudite Al Nasser def na fa boo xam ne ah, bu ama am solo la moom gone gi mi ngi waajal match yi nga xam ne moo ne ci Euh, maanaam kanamam match Ligue des champions gu nekk foofii ci Arabie Saoudite ak match championnat yi nga xam ne ñoom gone yi ba ñu gëjee amub defet loolee daanaka sax gone yi fàtte nañ ko kon ni ñuy doxal yal yàlla def ci sutura ci moom defal ko a jàmm ak tawféex officiel na li nga xam ni Euh, moo nekk benn football katub Casilla euh, boo xam ne démb euh, dugg na ci terrain bi ci biir Real Madrid di football match bu Ligue des Champions ni ko pass la tudd moom moomee gars yi gis nañ taxawaayam te it jàpp nañ ni gone googee lu ñuy gën di dem ci kanam expérience am di gën di yokk muy mën a dimbali club boobee ci ay bit ak lépp lu mu mën di doon moo xam milieu terrain moo xam attaque lu ñu ko jox mu jël loole tamit nekk na mbégte ci merengue yi nga xam ni ñi ngi may may nopp te it jàpp nañ ni kookee bu ñu demee ba ci kanam mën naa dàbbar ñu lu baax a baax gars yi kontaan yàlla na